examen virologique yi may waaj lim ci junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak test yi ñu def juróom fukk ak juróom-ñeent fukk ak ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk juróom-ñeent nekk ay cas contact benn cas importé fukk ak ñeent di ay cas communautaire ñett ci mbaaw ñaar ci Rufisque ñaar ci Bargny benn ci jëppal benn ci Parcelles Assainies benn ci pikin benn ci Dakar Plateau benn ci Kër Massar ak ñaar ci Touba téeméer ak fukk ak juróom benn ci maladi ñu ospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malaat yi ñu ngi ci service réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ci cas bu njëkk ba senegal waññi nañ fi juróomi junni ak juróom-ñeent fukki cas yoo xam ne positif nañ ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent wër nañu ci juróom benn fukk ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett ak fukk ak juróom ma bamtuwaat ko mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi leen di traité si suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi ñu